state guard uh, soldier arrested. Uh, the personnel of the military police have on Monday arrested and detained a state guard officer who they say was found with suspected cannabis. This was the soldier that fled from the hands of state security agents who they found a container of suspected cannabis at a checkpoint. He was suspected to have uh, sneaked back to work. Army spokesman or spokesperson Major Lamin Sanyan said uh, Lance Corporal Nuha Conte uh, has uh, reported to work this morning, uh, May uh, 4, 2020, and he was arrested by the military uh, police at the state guard in Banjul. He explained that as a result of COVID-19, this officer usually been morning and afternoon shift. He said during this period, he Conte uses an opportunity to do his operations on sus on suspected drugs waaw mu ngi noonu euh, kii dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dal di arrest moom benn soldier lance corporal euh, Nuha euh, Conte Wow, mom, eh, dañ eh, eh, ko dañ ko dañ ko jàppaat parce que dañ ko xaloon dañ ko waroon a toppee li nga xamante ne mooy cannabis mooy ay drugs ci ci nuñ ko mën a waxee mhm. affaire taay yi nii waaye ñu ko waroon a jàpp mooy ñuy yëngu ci côté boobu moom dafa dafa dafa dafa yoreen fetal mu <laughs> fetal si kaw mu xala re titlo gaay mhm. bi mu rëcca ci noonu bu mu demee liggéey dellu ci ci liggéey bi ñu dal di ko arrêté ko benn place jamono ji foofu la yëf yi toll moom moom euh, fu mu nekk nii daal mu ngi ci ci ci. ci loxo euh, yoon ci loxo yoon euh, wala boobu fu mu nekk nii ñu ngi ko sax agagut ci yoon waaye ñu ngi ko tegagut benn place foofu ci hmm. armée bi. Ah waaw. yaa doy na waar comme niñ ko fi daan waxee rek because Amadou affaire yi daal dafa xaw lii ak lu nekk Basse yëpp daanaka benn la. waaw réew mi daal soo réew mi. dafa yéeme rek moo fi xew jamono ji waaw ah. dafa mel ni dafa dafa sabar gu toj si nit ku nekk rek taxaw def lu la neex soo loolu nag dëgg dëgg dëgg jot na nag ñi nekk si kaw hmm. am nag beneen taxawaay. raw beneen taxawaay leen war a am Amadou parce que doy na waa trop buggoos ñin gis ne ñoom ñoo waroon a def taxawaay réew mi. ñoom ñooy dem def lu safaanoog loolu ba gis ne yi know loolu daal kenn xamul lu mu tudd fu mu toll daal war neen taxawaat seetlu si bu baax a baax gis ne jël nañ mesures yi am solo pour ana yoon ana yoon.